ginnaaw euh, bu ñu sante yàlla julli ci suñu yonent euh, suñu yonent euh, Muhammad ne ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi am mbégte yëkkati ay kàddu nuyoo ak ziyaara kàddu yu sell di ko jëmalee ci njabootu kunta suñu mbokk suñu bi xalifa bu ñoo ngi lay nuyu d'abord ci turu kilifa yi jiite ci son excellence monsieur le président de la république nga xam ne moom lañu ñu toogal fii ci région de Thiès di la nuyu it ci turu kilifa yi wàllu gouvernement plus particulièrement ci turu ministre de l'intérieur maître Sidiki Kaba nga xam ne moom moo nekk ministre en charge du culte di jokkalante ak kër diine yi ak kilifa diine yi ci wàllu état di it ci turu délégation biñ fi lem léegi yépp te tey ñu gunge woon gouverneur mu mun a yegsi fii ci dëkk bu sell bi yegsi ci mbokkam yi yegsi ci ay xaritam yegsi ci ay wajuram donc bu ñuy jàpp njaasaan ci entité religieuse maa ngi jógee Tiwaawoon léegi sëñ Cheikh maa ngi lay jottali nuyoo kilifa yu sell yiñ fa ñaanal léegi te ñu am mbegte di jottali nuyoo yooyu fii ci Njaasaan di la nuyu it ci suñu tur dëgg la en tant que loolu la namm mais surtout en tant que jullit et en tant que taalibe ci bépp diine nga xam ne ci yoonu Muhammad yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa la nekk am naa mbégte nag te ñi may liggéeyal mën nañ ko seede semaine bee passé ci mbaaxu yàlla lañ ma installé comme gouverneur de Thiès bi ñu yàlla dimbalee ñu pare ci installation bi ci jàmm ma jël dogal du tàmbali benn activité ci région bi avant ma yegg ci kër diine yi nuyu leen ziyaar leen sàkku leen ñaan ensuite soog a tàmbale liggéey loolu moo tax maa ngi koy rappeler tout à l'heure dëgg la mat na environ une semaine bi ma toogee mais këyit bu jëm ci wàllu liggéey laa signéegul boobu ba léegi parce que lu mel ni laa doon xaar te loolu suma décision personnelle la doon rappelé léegi Serigne Babacar ci Tiwaawoon benn këyit laa signé kayit boobu mënul woon ñàkk mooy circulaire bi ma convoqué comité bi ma waroon gunge lu weesu loolu tàmbalee guñu véritablement liggéey bi ci Thiès di sant yàlla nag bu baax sëñ euh, Cheikh di nuyu njaboot ji fii peut-être ñu bari xamuñu ko dama fi bokk am fi wàll te loolu aussi buñ ko waxee tey du propos de circonstance ni tubaab di wax lu ñu mun a waxaat ci suñu kanam borom bu ñuy layoo ak moom dina ci ñëwaat un peu plus tard waaye comme ni ma ko defee bi ma yegsee Thiès bokk naa ci doom yi bokk naa ci njaboot yi nga xam ne ñoo ngi ñaanal suñu wajur fi mu nekk foofu en Tunisie yàlla delloo ko wéram delloo ko kattanam mu ñibbisi ba senegaal te bu ñu yàlla defalee loolu su fekkee bés bu muy ñëw xatuma te suñu borom nangu na ko man ak njaboot ji ñooy ànd ba aéroport ñu jël ko foofu ñu àndaat ak moom ba njaasaan bu soobee yàlla sëriñ bi yegsi naa ci région de Thiès gouverneur nag euh, buñ koy nommé toujours nomination bi day ànd ak lettre de mission boo xam ne son excellence monsieur le président de la république moo koy définir jox ko ministre de l'intérieur ne ko gouverneur bi pour région bi lii laa jàpp mooy priorité lettre de mission boobu bi mu yegsee ci man ñetti sur priorité la bi ci jiitu sëñ Cheikh bu mooy sécurité waa Thiès ak sécurité seen alal sécurité des personnes et des biens qui sont dans la région de Thiès ci premier point boobu ginnaaw bi ma félicité ak santé sant ñi yor wàllu boobu te ñu jiitu woon ma fii yëgal naa ñépp ci kàddu yu leer ci mbaaxu yàlla ak ñaanu sëriñ yu baax yi nga xam ne fekk naa leen fii ci région bi suñu premier komba mooy jóg contre ñii di perturber kaaraange waa cees incha allah mënuñu ko jeexal moom parce que criminalité ak société humaine ñoo judduwandoo tubaab di ne la criminalité est consubstantielle aux sociétés humaines waaye lépp lu ñu yàlla man loo lëpp li mu ñu taxawu ci wàllu énergie ak kattan fas yéene nañ ko mobiliser pour xeex ñi nga xam ne ay samba booy lañu ñi nga xam ne dañoo jóg pour dal ci waa ñi nga xam ne dañoo jóg pour dal ci alalu waa te teguñu ko fenn muy braqueur muy criminel muy agresseur muy voleur te ñeent yépp benn nekkul ci yoonu yàlla benn nekkul ci yoon bu sell bu soobee yàlla suñuy énergie ak suñu komba ci ñoom lañ koy orienté te amuñu ci benn hésitation des limites du departement de Tivaouane jusqu'aux confins de limites du département de Mbour jaaree ko par Thiès xam naa du ñàkk ñu ngi may déglu parce que am nañu les réseaux sociaux nous sommes prêts à vous trouver là où vous êtes nous vous combattrons et par la grâce de Dieu nous allons vous vaincre bu soobee yàlla mooy première mission bi nga xam ne administration Thiès ak comité de sécurité moom lañuy ñuy njëkk a def sëñ Cheikh bu bu loolu passé dëkk pour mu avancer il faut que ñu saytu koom-koomam ñun ci tubaab ñu koy woowee le développement économique et social de la région Thiès dafa am potentiel bu bëri Thiès mi ngi abrité ay projet d'état yu mag waaye aussi Thiès yàlla daf ko wërsëkal ay nit ñoo xam ne yàlla baaxe na leen ci wàllu alal ñetti yooyu yëpp buñ ko dajalee suñu liggéeyee normal dinañ ko jëlee fi mu nekk ni place bi c'est vrai négligent wul mais war nañ ko mën a yóbbu fu gën a kawe ak fu gën a sori ci wàllu développement ak koom bii mooy suma première sortie jël naa engagement ak sumay collaborateur bien entendu que lépp loo xam ne programu état la te mu jëm ci askan wi les grands projets de l'État soobee yàlla dinañ leen accompagner dinañ ci topp ba mu yegg fi mu war a yegg concernant les ressortissants de Thiès cadre yi te yàlla wërsëkal leen ñu nekk des patrons d'industrie ñooñu it gouverneur nuyu na leen rafetlu nanu bu baax effort yi ñu def ba tey pour jàppale seen Thiès ak seeni mbokki Thiès mais bu soobee yàlla maa ngi ñaan ñoom ak administration ñu lëkkaloo pour seet naka la ñu mën a yokkee seeni contribution pour cette région ci wàllu emploi wàllu création de richesse wàllu gëna a yëkkati Thiès parce que ñoom ñi amuñu lu ëpp Thiès amuñu dara lu dul Thiès donc war nañu mun a am un partenariat entre ñun ak ñoom ñu ñëw jàpp ci li état di def ñu accélérer la croissance et l'émergence de cette région. te nekkul moom moo nekk ci ginnaaw bi nga xam ne moom la son excellence définir pour gouverneur de la région de Thiès bi ma nekk ci mbaaxu yàlla dafa ma fàttali que Thiès dëkku diine la wax naa ko ci sama allocution de prise de fonction Thiès c'est la terre de Seydi El Hadji Malick Sy. Thiès, c'est la terre des grands érudits de Ndiassane, de Pire, de Thiénaba et de Mbour avec la famille Baro. su ma tuddee ñooñu signifié wu nawul que fàtte naa ñeneen ñi. Thiès, c'est le foyer de la chrétienté avec Popenguine. dëkk bu yàlla bindee noonu boo yegsee ñu dénk la administration am war nga ériger sa diggante ak kilifa diine yi comme priorité ñun am na fu ñu war a taxaw pour ànd ak yéen yéen it am ngeen seen ñaan ak fi ngeen mun a taxaw pour jàppale ñu ci mission bi relation bi faw mu rafet sëñ Cheikh Bou donc loolu it du ma ci am samdi du ma ci am dimanche su fekkee maa ngi wér duma ci musa tàyyi je vais accompagner pleinement les foyers religieux et les khalifes qui sont à Thiès dans la région incha di la sant bu baax ku yegsi na nuyo ku yegsi na ziyaara ku yegsi na tàllal loxoom sàkku ñu ñaanal ko ci ñaan boobu sëñ Cheikh bu dama bëggoon ñu jiital ci collaborateur yi ak seen njaboot nañ ma ñaanalal bu baax ñi nekk ci comité régional de sécurité bi yàlla defal leen jàmm ñi nekk ci comité régional de développement bi aussi yàlla defal leen jàmm may leen kattan bu ñu amee loolu manit yàlla defal ma lu mel noonu bu soobee yàlla mun nañu xool préoccupation yi ak défi yi seetal leen ay solution dox ci solution yooyu ba mu yegg